tamtakata jaysun muhammadalun tamtakata jaysun muhammadalun tamtakata jaysun muhammadalun waa kemtaani kemtaan tv Cheikh Ibra Jinne kemtaani jinne yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen baal xaq di leen baal xaq di leen wax ngeen gën a abonné tey partager vidéo yi ndax abonnement bi mooy li xam ne moo yokk courage bu baax a da ngeen di poser question yi seen numéro yi di woote waa tey ñu ngi leen indil ku bëgg a firi gént ndax gént doomu aadama da siy tegtale ndax gént day boo boo gisee kuy gént rek mën nañ ko wax avenir ba tey ku bëgg a listixaar danga bëgg a dugg ci soxna xamoo nu muy demee danga bëgg a dugg ci jëkkër xamoo ni muy duggee nga nga joxe turam ak turu yaayam wala turam ak sa tur yow mi bëgg ñu xoolal la ko wax la fi ngay jaar ku am loo réer re nga bëgg mu feeñ nga seet ko kuy listixaara tamit nga xam ne yow da ngay wutit liggéey mënoo am liggéey wala ngay dugg ci dara xamoo nu mu fa demee boo ko laajtee incha allah ñu wax la ko ndax nit lu muy dugg rekk da ko war a xam ba xam lii lan ak lan la ciy jëlee waaye dañuy fonk di ñaanlu di xoollu suñuy mbir ndax nit ku ne war naa xam saraxam ndax nit buy dugg ci jigéen war naa xam góor buy dugg ci si ci soxna di jël soxna war naa xam ki mu jël mooy kan lépp nag dañ koy dee dañ koy seet buñ ko seetee da nga xam fi nga war a jaar ndax kenn ku nekk am na koo war a àndal am na koo xam ne boo ko takkee tey boo amoon milliar boo ko takkee un sa li nga yoroon lépp da nga yelwaani am koo xam ne boo ko takkee boo yoroon téeméer nga takk ko léegi nga am ay million waaw loolu nag si rawxaan yi lay nekk kenn ku nekk sa rawxaan incha allahu rabbi ku nu ko laaj si numéro yi daan la ko wax ndax ñun moom li def ngir jëmm yeneent bi nekkaluñ fi kenn lu liggéeyal yeneent bi waaw bëgg nañ daal képp koo xam ne yaay abonné ci chaîne bi tey posé say question di ko laaj ñu lay yombalal lépp ci barke yenente bi kon nag ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen wax ngeen gën a partagé vidéo yi te abonné ci chaîne bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf